jóg bàkk mustafa aawzu billaahi bismillaahi teenoo jóg bàkk mustafa man bamba mbakke mi satoo maa la ko way ndax ku dul mustafa sëriñ moo du bu soo sopp sëriñ Moodu Mustafaa Fallilu sët ci Bamba di doomi Seex Fallu ñu duppee ko Mustafaa Seex Mustafaa ko jàngal tarbiya ko def na ci moom jikoy nabil Mustafaa bisub altine la ñépp jooyo wutali barabub Seex Fallu ba ñu xam ne ñàkk nañ Mustafaa sëriñ Moodu daana faj aajo ci lu gaaw baatin la boole woon kun la yoron mooy Moustapha lim def ci foraas yu mel ni sam-sam ali ak sam bu saaba tuuba jooy nañu Moustapha benn dëkkam takkatul yi saret di rawaley malaat ndax poste de santé yi Seex sëriñ Moodu Mustafa Lilu jàmbaar ja làqu na waame wa dem na fajkatub aajo ba dëddu na duniyaa kon Europe ñàkk nañ Mustafa Moodu ya daan ñëw mënatuñoo yónnee ngir ñàkki këyit ak kiris bu tar ba ñooña yëg nañ demok Mustafa jëfi sëriñ Moodu ci duniyaa ker suul du ko tere feeñ yal na yàlla yokk leeri mustawa sañ-sañ ba daa yéeme woon ba daawul nege benn aajo ëllëg lu mu wax borom bi daal koy def ngir mustawa col gu riis te yees Boniface ak marocain duñ ko roye ci kudul mustafa reeju neex jaag jib ju taaru ja talum wax du deñ waat naa ni waliyu kaamil nga yow mustawa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin addi Cheikh Moustapha Falilou